comme suñ mbokk internet yi ñuy suivre sur référence actu ñu ngi leen di dalalaat si seen beneen numéro ndénkaane koor tey nag ñu am le plaisir euh, seet si euh, président conseil départemental bu Mbour nekk directeur général bu CIRN muy euh, Serigne Saliou Samb DG ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay di leen remercier ci lu ngeen ñëw fii sama kër ñëw di ma mhm. leen ñaanal kooru jàmm et puis ñu dem ci incha allah ci ay feet yu neex. ñu wareeg jàmm di ko ñaanal waa Sénégal yëpp. incha allah incha koor gi sa relation ak weeru koor c'est quoi yow koor noo koy dundee. waaw man de su ma amoon lu ma gënal sax euh, koor gi du jeex. Hmm. parce que c'est des moments de de paix avec lu ñu naan soi-même. Hmm. paix intérieure la. Hmm. Euh, des moments de de euh, de convivialité avec aussi les autres. parce que damay gis ne temps au corps nit ñëpp dañuy gën a dal. xol yi dañuy gën a nekk benn. Mm-hmm. les gens ils deviennent plus euh, ouverts. Mm-hmm. et plus enclins à à à s'entraider. Mm-hmm. donc xam nga corps donc ça veut dire day andi benn ambiance bu neex. donc man su ma mën lu ma gënal. kon koor gi day day day day. continuer sàmm kii mbayeen yi ak ak ak wàddeen yi duñ la duñ kontaan. waaw mais ñoom xam nga ñoom ak sila sila yi. waaw ñoom ñoom xam nga rek ñoom ñoom dañoo bëgg ak looyu ni dañoo bëgg dañoo bëgg lekk. Mm-hmm. mais man nga xam ne man euh, en temps normal su may liggéey. Mm-hmm. Euh, je ne mange que le que le soir je mange même pas à midi. donc ça ne ça ne me dérange pas du tout. Mm-hmm. donc et puis da lay permettre aussi nga nekk dans une. forme de permettre de xam nga de perdre du poids. Euh, tout ce qui est yenn lekk yi nga doon xam ne ko doon lekk dans la journée. Mhm. nga bàyyi ko donc vraiment man koor man période boo xam ne yàlla moo xam pour la mu def ko quoi. Mhm. c'est beaucoup plus par rapport à la santé humaine par rapport sur le plan spirituel. Mhm. Euh, tu avec toi-même nga demaat ci les les fondamentaux quoi fondamentaux yi. et puis tout ce qui est euh, euh, na ko laa ko mën a waxee les contours. superficielle yëpp dañ koy teg de côté dañ koy teg de côté. donc vraiment man weeru koor moom weer bu sell la et ça et weer bu sell la. mais yow da nga danga danga da nga da nga am ñaar ñaar da nga am casquette DG. am casquette diriger benn institution muy conseil départemental bu bu bu bu bu euh, Mbour. yooyu yëpp liggéey boobu yëpp xam na du liggéey bu yomb surtout bu nekkee nit koo xam daa bëgg bu lu baax du liggéey bu yomb ak koor gi. nan ngay organiser wu pour mën a def yooyu yëpp. man euh, dans ma formation de de chef d'entreprise et de manager. oh j'ai lu de ay livres ñu ne ñu ne le bon manager. Mm-hmm. mooy celui qui n'est pas indispensable. ça veut dire que celui qui sait so da ngay organiser wu d'une manière ba nga xam ne soo fa nekkul sax mm-hmm. euh, la boîte continuer à tourner. Donc c'est seulement euh, donc une question d'organisation, d'une très bonne organisation. Mm-hmm. Maintenant, euh, euh, je suis bien entouré mm-hmm. des équipes où, euh, que nous sommes responsabilisés. Mm-hmm. Des procédures, ils peuvent gérer sans que je sois là, mais en même temps, j'ai le retour d'information pour que plus tard, si je intervenir, ma mën a intervenir su ma waree joxe aussi ay indication euh, des directions tamit ma mën ko def à temps mhm. sans pour autant yàqal leen seen liggéey mhm. donc je peux être euh, ici à la Sirne mhm. di gérer le conseil départemental mais gérer wu ma loolu rek y a aussi Sangomar mon usine Sangomar donc euh, j'ai mis des gens qui gèrent il y directeur général que j'ai pris qui gère mais système bi je suis dans le système ce qui fait que j'ai les informations danaa xam usine bi Euh, le nombre de poissons qui rentrent dama koy xam damay xam tamit ne camions yi su nekkee ay ay Ziguinchor wala wala Saint-Louis dama koy xam damay xam plage yi Euh, tey ban jën moo fa ban moo fa ñëw à partir de 6 heures du matin j'ai pas savoir yan jën ñoo ñëw tout ça c'est une question d'organisation parce que j'ai mis un système d'information boo xam ne su ma yeewoo rek am naa information yu yu yu ma soxla yëpp quoi. Mm, mm. conseil départemental aussi il y a général qui est là il y a mes mon équipe qui qui qui sont là donc kuréel yi maa ngi koy xam di ko di ko suivre su ma ñëwee tamit euh, parfois dans la semaine j'y vais un jeudi j'ai le tour de la question euh, je m'organise là Cerno aussi Donc, ce qui fait que j'arrive à euh, j'arrive à gérer c'est une question d'organisation. Mmh, mmh, mmh. Je pense que nit ki soo organisé rek lépp lépp day yomb et puis surtout euh, je me sens pas indispensable. je me suis organisé pour ne pas être indispensable. ok ok ok je comprends bien. même su ma fa nekkul sax liggéey bi day daw. loolu loolu loolu mooy loolu mooy un manager. mais su nekkee ne foo nekkul rek du dox. du dox je pense que yow doo mën a def. tout se fait tout se fait avec toi même sans toi. même sans moi. tout se fait avec moi même sans moi. donc voilà c' est <laughs> comme ça que ça. c' est comme ça que je gère quoi j'arrive aussi à faire la la le week avec les avec mm. euh, faire de la euh, sensibilisation quand il y a un euh, un programme d' état. Mm. dugg ci mais yooyu yëpp si weeru koor gi dina métti non mais dàqu koor la. dàqu koor day tax sax doo euh, euh, day jàll bu gën a kaw dara naan nii rek et puis soo commencé sur le terrain balaa ngay pare ngoon jot na. ngoon jot man je pense au contraire on aimerait bien avoir plus de de plus. ñu def ko ñaar wala ñetti weer quoi. waaw mais man man man ça m'aurait pas hmm. euh, de le faire toute l'année parce que man mon rythme c'est comme ça man man je m'ennuie vite. Hmm. c'est ça mon problème. j'aime j'aime être occupé. Hmm. j'aime faire des choses. j'aime être avec les gens. j'aime avoir des des les relever continuer demaat encore ci leneen parce que àdduna bi tuuti na tuuti boo xam ne et puis gàtt na gàtt boo xam ne je soo waree liggéey rek nekk ci nekk ci xel nekk ci ndaw war a liggéeyal liggéeyal ba euh, ba ba ba jeex quoi dem ba jeex ko on di après maintenant euh, le temps de la du repos viendra loolu moom c'est forcé soo demee ba toll ci Euh, sooy toog di nga xam ne war nga mën a toog. war nga war nga toog. war nga toog mais moment bi nga war a taxaw mm-hmm. liggéey. Euh, def ko def ko rek sans sans état d'âme quoi. Mm-hmm. mais weeru koor aussi euh, DG weeru diine la. Mm-hmm. ñu bëri dañ ci wax ni c'est le moment di nafaraat li li li téere bi wax moment wu naafila guddi gi ak sa kii bi sa sa emploi temps boobu noonu di nga am temps pour naafila guddi toogaat nafaraat affaire yooyu yëpp waaw. non man nag sincèrement xam nga man je suis quelqu'un boo xam ne euh, je vais toujours être en phase avec avec avec mes avec lu may def. Mhm. Euh, télé bi du fi nekk rek. Mhm. may wax loo xam ne du ma ko def wala loo xam ne vraiment c'est pas mes habitudes. Mhm. du dëgg euh, man ce que je peux dire c'est que damay naafile. mais jël sama temps yooyu di def naafile yu gudd yooyu ak di ak di yëre course yu yàgg yooyu. sincèrement. waaw waaw du ma ko def ko def quoi. Mhm. mais nag maa ngi maa ngi julli maa ngi def lu baax maa ngi lii comme ça. du mm, mm, mm. ma waree def ay ñaan tamit dinaa ko def. ko def du dëgg mais nag euh, j'attends pas que naafile bi ñëw pour changer mes mes mes habitudes quoi. mais koor gi mm-hmm. man lu may def euh, tout le temps laay def parce que je me dis que la religion n'est pas forcément n'est pas. Euh, euh, intérimaire quoi. de temps en ah. temps wala wala temporaire. de temps en temps on on est de un bon musulman mm. lendemain après comme koor gi jeex na rek. on on on retourne à nos travers quoi non. man je je je suis de julli damay julli koor tamit j'ai les mêmes mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. Euh, def lu baax doo xaar ba koor yi di ko def. Mm-hmm. ñaanal say waajur wala ñaan def ay ay. ay ñaan yoo xam ne ko war def pour yow ak sa ak sa njaboot. Mm. ak ak dëkk bi doo xaar ba ay ay di ko def. Mm. c'est vrai que dafa nekk ay période yoo xam ne tamit am na ay ñaan yoo xam ne da ciy baax. Mm-hmm. loolu loolu am na ñoo xam ne je pense que ils sont plus enclins à le faire quoi. Mm. mais man nag je continue ma ma routine. Euh, koor gi je euh, je change rien du tout euh, sama état d'âme de faire des bonnes choses je le fais tout l'année. toute l'année. je suis pas. je suis pas un, musulman euh, saisonnier quoi, saisonnier quoi donc j'essaie de faire les bonnes actions doivent être je veux dire euh, permanent dans, le temps ouais. doivent être inscrit inscrit dans le temps et ce que j'essaie de faire euh, koor gi euh, c'est vrai que yow li nga daan def ngay def koor gi moment la aussi de solidarité parce que gis nañ weeru koor bi ñu nekk les hommes politiques Euh, ñi daawul joxe ndimbal sax gis na leen léegi ñuy dimbal ah, yow nan nga gisee loolu nga xamante ne parfois da ngay gis koo xam dañ koy dimbali mais après niñ koy ni ñuy ni ñuy ni ñuy médiatiser affaire ndimbal bi day nduru sax leneen ko day day voilà c'est pourquoi je du ndimbal ah. je le considère pas comme ndimbal parce que ndimbal. c'est quelque chose aussi qui doit être inscrit dans le temps. dans le temps ça veut dire sooy dimbali nit doo xaar ba ay koor rek nga di ko dimbali. Mm-hmm. Euh, su nekkee da nga nekk ne yow quelqu'un qui est quelqu'un qui qui qui verse dans la solidarité. Mm-hmm. ça doit pare être solidarité occasionnelle de temps en temps. Mm-hmm. wala koor dafa ñëwal wala ki ñëw loolu déedéet. Euh, euh, sooy solidarité les personnes sont toujours dans les difficultés yàlla su la mayee loo xam ne say morom amuñu ko. war nga mun a am générosité bi di ko di ko def di ko def le quotidiennement mhm. loo mën a jàppale nga jàppale ko te yàlla tax maintenant ci koor gi je dirais loolu ay sukkaru koor la ça veut loo xam ne dañ ko war a def mhm. pendant koor loolu sukkaru koor laa ko mhm. loolu nga def ko c'est pas forcément de la solidarité euh, occasionnelle quoi c'est que période bi moo ko laaj ñu ne ah koor lañ nekk donc il faut nga joxe suukar koor. mais pas ay solide je le considère pas comme ay. ay ndimbal comme ay ndimbal. yaa ngi suukaru koor yow sa bopp nga koy defal. defaloo ko nit ñi de parce que boobu yaa ngi ut yow yaa ngi ut ay ay ay ay ay ay tuyaaba ngay ut yow soo koy def. maintenant nag comme je dis euh, dañoo nekk ci benn monde boo xam ne tellement politisé. waaw ah. politicien bi su deful dara ñu ŋàññi ko. Mhm. ni ko xoolal boobu ñu ko falee ba léegi. amul benn njëriñ askan eh. defalul dara. boo tax que les politiciens sont obligés maintenant de euh, lu ñuy def rek au caméra yi. pour ñu mun koo ñu mun koo wane. parce que su suba ñu bañ a wax ne. defoo dara et et et loolu dafay dem ba xam ne ça biaise la tout ce qui est le l' environnement euh, de. l'humanité de l'humanité bi war a mu ci waroon am. du dëgg donc euh, loolu loolu mooy problème bi ça veut dire que était obligé de de rentrer dans le jeu. man actuellement nii demain. je dois je dois ku may ma ci def quoi je dois euh, distribuer des euh, ay sukkaru kool ay ceeb ay euh, aussi ay kii ay soble ak yëpp quoi. Mm-hmm. je je je vais le faire mais tu es aussi de le. de médiatiser de médiatiser soo ko deful. Mm-hmm. bi la la ñuy wax Saalum Samb de mu ngi nii. amul benn njëriñ mais nag am na yoo xam ne da nga koy def te xam ne kenn du ko xam. kenn du ko xam mais am na comme ñu on savait avec les militants mm-hmm. euh, euh, la. avec yenn c' est la politique aussi en même temps. waaw da nga jàppale militants yi parce militants am na ñoo xam ne dañ ko soxla. dañ koy soxla te ñoom nag dañuy ñëw dañu waa président ah ñu de joxagoo ñu sukkal ko. waaw comme ko dañ koy saa yu de ci li ko. Euh, mm-hmm. Mm-hmm. président Macky Sall dënk. Ah, ci responsabilité yooyu ah, mu ngi taxawu. askan wi askan wi. c'est obligé. c'est maintenant man je fais la différence entre ces deux choses là. Mm-hmm. am na yeneen yoo xam ne c'est mon quotidien. Mm-hmm. mooy ma gis koo xam ne dafa nekk dans le besoin ma faj ko te kenn du ko yëg. kenn du ko yëg parce que loolu maa ko ak sama ak sama ak sama bàmmeel. Mm-hmm. Euh, ma gis ne dafa am koo xam ne dafa soxla euh, opération. ko ci suuf te kenn yëgu ko. koo xam ne peut-être que amul tey dépense yàlla def ko ba mu ba mu am accès. ci man ma mun koo ma mun ko koo fajal te yàlla tax te ça je le fais tous les jours parce que man si loolu lañ ma yar <laughs> loolu la ñu ma yar ku xamoon samay waajur euh, loolu ma payi di wax ñu ma sa waajur yàgg naa faj ay ay kii mbu mbuumu mbuumu gàcce donc ça veut dire que ñu la yaree ci loolu noonu da nga moo def maintenant j'ai fait la différence entre entre entre deux choses il un journaliste euh, qui m'a la dernière fois et je peux dire son nom ah il s'appelle Idignan pour dire que Idi euh, Niang c'est un journaliste qui a à ah, m'a dit que mais président mu ne waaw mu ne il faut nga bàyyi yenn yi ngay def mu ne ko pour la mu ne parce que tu fais tu fais beaucoup loo defati yooyu da nga ko war a nit ñi di ko yëg ma ne ko non Idi euh, je suis d'accord mais dafa am yoo xam ne je préfère rek mu nekk sama sama sama bàmmeel quoi parce que dafa déggoon benn affaire bi ma def ñu dem wax ko mu ñëw nag ne ma président pourquoi yu mel noonu doo ko doo ko alors que alors que ñeneen ñi su ñu demee sax génnee seen toilette sax dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy wone. ma ne ko non man naa def politique bi. jaamu ci yàlla c' est vrai que politique bi il xam nga comme euh, may def parce que j' en ai besoin. ñu xam ne Saloum bi am ko ñu mun ma jox ne ah kii de defoon na fi lii parce que suñu xamul duñu dañu naan kon kii amul njëriñ mais nag am na yoo xam ne je préfère def te yàlla tax. après yàlla moo lay taxaw. moo lay taxaw moo lay taxaw moment yi nga ko soxla. Mhm. boo xam ne nit ñi duñu mën ci dara. Mhm. boobu yàlla mooy ñëw régler la ces choses doo xam sax. te doo xam fu mu fu mu jógee. Mhm. beneen bi euh, Saliou Samb ak Koor ban histoire c'est qu'est-ce qui vous lie nga nekk xale jàngi Koor. xanaa di def comme comme comme kii yëpp euh, <laughs> temps booy rek. Hmm. di woor dem ci dem ci frigidaire bi euh, frigo bi nga naan ba man di ñëw ne fomp sa gémmi ñëw ne. je temps yi dafa métti quoi fekk yaa ngi naan ba bëgg a dee njabootu yooyu ñëpp yooyu moom après c' est des c' est des moments ko doon jàng quoi. Mhm. mais maintenant à un moment man gi man lu may fàttali seulement c' était ambiance familiale ah, xam nga ñun suñu paaw euh, ñun on habitait dans une euh, mhm. cinquante cinquante grosses PO yi. Mhm. da gis suñu wàccee. ñoom suñu demee géej ba ñëw ñi jóge Mbour ñuy jóge Joal partout dañuy mot plus de deux cent personnes di di di di ndogu suñu kër mais boole ñu teg ko fii soo amee benn tibb rek jeex na benn tibb <laughs> te te moo xam moo ne hmm. dañuy liggéeykat lañ. Hmm. ça veut dañuy bëgg lekk quoi. soo nekk man nag j'aimais bien être dans le dans le temps. Hmm. su ma ñëwee dem benn tibb laa ci am rek affaire bi jeex quoi bool bi jeex <laughs> xam nga. yooyu moom la doon mais ambiance boobu mais et puis euh, euh, suñu kër. ku ñëw rek ñu ne la demal kër Ndiol Samb soo demee foofu di nga di nga di nga di nga di nga ndogu wala di nga añ di nga lii xam nga c'est man ambiance yooyu ñoo ma ci neex quoi. donc yooyu la man yooyu la euh, xam nga soo soo bu téyee buntu kër gi ma ne ubbi leen buntu kër gi. pour que ku fi romb su soxlaa mën a dugg ñëw euh, yaa ngis ma la. mais léegi ñun suñu suñu kër yëpp a tëju léegi. yëpp ay tëju waaw yëpp ay tëju parce que c'est un problème de sécurité maintenant vie bi vie bi moo changé quoi. mais au moins man ambiance yooyu ñu ma ci neex quoi mooy cette ambiance d'être toujours en famille. Euh, famille bi nag moom famille élargie man su loolu ñu ma yar quoi ñoo xam ne mooy ñu nga bokkal ndey ak baay say doomu say doomu baay yoo xam ne nekk ci kër gi. ak ñoo xam ne tamit euh, ay am di jàmm ak koñ bi. ak ñooy xam ne tamit ce sont des euh, les les les les les pêcheurs ñoo fa tamit. Euh, ak ku ku doon voyager. Mhm. ñëw ñëw ñëw Escale. et puis surtout waa Escale en plus Escale boobu ñun on habitait à Escale ñun. Escale bu dëgg mhm. Escale suñu kër moo nekk Escale en pleine ville. Mhm. donc ci boobu garage bi lañ nekkoon. donc ku ñëw ci garage ba sax guddee amoo amoo foo eh, de générosité xam ne su samay ah. amoon nañ ko. te ñun ci uh-huh. yooyu lañ ñu yar donc man uh-huh. pour man. koor nag loolu la war a doon quoi. loolu la war a euh, doon c'est moment de communion la. moment de de générosité. Mm-hmm. chacun essaie de montrer euh, le peu de le le de part de de de bonne chose bi nga am en ah, en en toi quoi. c'est ça c'est pour man loolu mooy koor. loolu loolu mooy koor déjà ñu dugg ci dernier suñu dernière partie dañuy wax un peu d'actualité actualité bi am. nekk ci sa département bi nga xam ne yàlla def na yow yaa ko jiite muy département de Mbour mooy li xew bërki démb ñaniñ ñu gis euh, benn gi Guy Marius Sagna dem fa euh, ñu ñu mu am ay ay nit yu dal ci kawam. waaw xam naa et man pour man ce qui s'est passé. Euh, mun nañ ko regretter ah. mun nañ ko regretter par rapport à bi ñu bi bi Sénégal am quoi bi gis foofu. Mm-hmm. mooy ay doomu sénégalais di di xëccoo ci ay ay mbir. Euh, mais nag sama xel dal na ci parce que j'en ai parlé avec le maire Maguette le DG du, du COUD. Mm. Et, et et et il m'a rassuré moom il n'y est pour rien. et ça pour man foofu lañ koy xaar quoi parce que moom il n'a pas besoin de il n'a pas besoin de ça. ce qui s'est passé c'est une population ñoo fa nekk. Mm. ñu bëgg seen maire loolu nag euh, parce que seen maire boobu dafa nekk maire boo xam ne daleen leen yëg. Mm. maire bu leen bëgg la maire boo xam ne da di liggéeyal. ba nit ba Sénégal dem def ko le le meilleur maire du Sénégal. kon kooku su gisee kenn ku ñëw naan day jéem a euh, di ko accuser daal si yenn chose population bi peut-être dañoo gis seen bopp. ñëw nag euh, di ko jéem a défendre. mais mais nañ xam ne Maguette seen naa pas besoin de ça. parce que ses ses actions doy na pour mun koo. défendre mun koo défendre. Euh, tey tamit j'étais très rassuré ba mu ñëwee wan leen papier yëpp ne ba ñu xam ne foofu loolu ñuy wax yooyu c'est réglé problème amu ci sax. Oh. parce que je pense que Maguette Sène euh, du muy gérer commune bi fekk ñu ko dégg mu ñu ko dégg ak benn. benn scandale wu ay ay ay terre nekkul sax nekkul sax dans euh, nekkul sax dans maintenant nag Guy Marius Sagna. Mm-hmm. man je considère que c'est un Sénégalais. il a droit d'aller où il veut. maintenant ci lu muy wax rek na xam suy wax dara. Mhm. na ko teg ci ay ay ay ay ci anam yu leer. c'est important ak l'accusation dafa dafa dafa dafa grave. Mhm. Mm, mm, moom nag dans sa recherche de peut-être de vérité et puis mu naan day jéem a taxawal askan wi na ko def rek ci ay eh, anam yu gën a nu mu gën a rafete mhm. mais nag am na droit dem euh, fu nekk et puis j'invite la population du de Malicounda ne leen nag euh, ku fa ñëwati. Euh, soxlawul ñu koy bundaxataal wala dara soxlawu ko. parce que le maire de Malicounda soxlawul loolu. soxlawul loolu parce que amul dara lu lu muy nëbb. effectivement euh, bokkul sax ci bokkul sax ci ay dimensions c'est pas quelqu'un de de de violent. ko ci loolu. Mhm. moom lan la lan lañ ko xamale mooy yokk yokk nit lañ ko xamale. Mhm. yokk nit mooy di di ñëw fexe askanam nag la ñuy nekk ci dans de bonnes conditions. Mhm. Euh, fe jël ay villages yoo xam ne amuloon électricité mu def fa électricité di defar ay ponts à à gauche droite. du dëgg euh, magasin nit ku baax la donc moo tax euh, man je suis rassuré. alhamdulilah population bi tam wane ne tamit mbëggeelam ci seen. ci seen ci seen maire ci seen maire. et ça aussi c'est c'est rassurant. maintenant nag euh, su sa ñu déplore rek mooy incident yi amoon par rapport ak. Guy Marius Sagna qui est un Sénégalais et qui a qui a le droit de pouvoir dem am ay position bu ko neex. Mhm. démocratie lañ nekk parce que ñun. Mhm. loolu la ñu son excellence pour le président Macky Sall. sant sant quoi loolu la ñu sas mooy. ku nekk am nga droit am sa position. Mhm. mais tamit bàyyil ni ki position tamit respecté la position. du dëgg ñun moom c'est un sentinelle. peut-être que c'est day alerté pour que peut-être Sénégal ñu bañ am ay dérives. Mhm. ils ont peur du pouvoir mais ñun tamit ñu nekk naa le pouvoir gënuñu ñu bëgg Sénégal. effectivement. gënuñu xam tam lu baax. Mhm. gënuñu xam tamit luy jëmale nit. ginnaaw wala ak luy jëmale nit kanam donc ñun comme yàlla ñun daf ñu jox yenn responsabilités yi. nañ ñu bàyyi tamit il faut que ñu am plus de confiance en en nous. xam tamit ne ñoom gënuñu ñu. Mhm. gënuñu ñu juddu gënuñu ñu bëgg lu baax. Mhm. gënuñu ñu bëgg Sénégal gi. effectivement lu dëgg mais nag Sénégal dafa am ñoo xam ne il faut que ñoo ñu jiitu. Mhm. di def ñeneen ñi tamit di di di. te àdduna sax noonu la ñeneen di wax. moom nag comme moom situation boobu il a fait le choix d' être un activiste. man je le conseille man j'aime bien les activistes ah. les projets je les aime bien. j'aime kenn ki toog na la ah. waaw mais Saliou defal attention ci lii loolu dafa loolu baax na de. Hmm. Saliou ah waaw mais suñu amoon gën a nga defee ko nii ah. Hmm. mais nag mais di saaga di andi violence di di di di wax ci deru nit ki nga ci teg loo xam ne. nekk du dëgg loolu activiste activiste xam lan la c'est un alerteur de temps en temps nga gis ne Saliou ah dañ la fal Saliou de waaw mais Saliou ci hôpital bi daal amoon nañ taxawaay bi la ñu xaar ci yow. lu tax defoo ko. pour leen defoo ko waaw mais pas Saliou rek ñëw rek ne mais Saliou dafa jël lekk na xaalis bi tax tax dayoo amoo ci dara. moo ci benn preuve. loolu loolu du activisme. loolu xam nga loolu loolu moom ay bàkkaar la. Mm-hmm. alors que man lu may xaar ci ñoom. Mm-hmm. mooy ñu ni ñu defoon rek ci ay euh, par rapport ak quand le quand le pays xam nga euh, nawoon dem beneen côté. Mm-hmm. politiciens yeeg activistes yëpp ànd ensemble. ne loolu du loolu du am. mais def ko ci ay ànd. ànd yu leer man je suis man man je revendique sama sama. sama sama proximité amul may nëbb mhm. avec les jeunes de parce que man maa nekkoon président Stade de Mbour mhm. activiste yooyu booy nekk Y'en a marre ak booy nekk ay Mbour Justice yëpp mhm. ce sont mes petits frères on discute damay wax ak ñoom su bëggee def yenn yi ma ne leen nag booy je suis pas d' accord sur ça parfois tam dañu may oo na président mais fii la ma si taxawaay ci affaire bi donc on en discute du dëgg je suis très proche de de kilifa euh, parce que ñoom xam nañ ne lu ma ñor mooy mbuur moo ma ñor ak ak kii dama naxa naxuma xale yi. te yéen a bokk dëkk bi yaa ñoo bokk dëkk bi. ça veut dire que donc ñoom tamit dama dama lu ma leen di wax rek toujours rek ne leen nag vous avez le mm. mais nañ ko def rek ci affaire dans le respect. dans le respect surtout. surtout et puis su ma su ma demee ba sama sama sama sama meeting euh, kilifa ñëw toog sama meeting. waaw ça veut ça veut tout dire. ça veut dire boobu mais meeting boobu ma koy defal kan laa ko doon mais xam nañ ne man dama ànd ak Macky Sall ci. ci dëgg. ci conviction. ci vrai. parce que Macky Sall tamit pour man dafa nekk ci yoon dëgg la nekk. Mm. moo tax ma ànd ak moom naka laay fexe ba mbuur ci seen bopp ci ci nguuru Macky Sall bi man loolu moo ma intéressé. naka laay fexe ba xale yi am xëy loolu moo ma intéressé mm. naka laay def ba nga xam ne nguur ngand <laughs> ngand boo xam ne devenir une région. une région. mais man yooyu la yooyu ci yooyu la xeex yooyu laa nekk man. c'est c'est c'est des combats légitimes yaa ngi si la mais ñoom tamit ñun seen ñun seen côté. Mm-hmm. bëgg naan waaw mais il faut que Sénégal jëm kanam. il faut que mm-hmm. développement jëm kanam mais ça kan moo koy kan mooy développé Sénégal su nekkul président Macky Sall. waay waay. xam isa la. Mm-hmm. donc moo tax ma la on n' est pas forcément des ennemis. waay vous êtes des partenaires on est des ñoom nañ nekk di di di si wax alerte. di alerte ñu oh, ñu nekk jëf yoo xam ne. jëf di jaar yoon. di jaar yoon effectivement. isa dëgg xam naa kilifa bu ma mooy président Macky Sall président xam naa liggéey bi muy def. xam naa tam su ma toogee ak moom waxul wax de yu ñuy wax. lu ñu wax ci leneen loolu ci lan luy jëmale. Euh, réew mi kanam réew mi ak ak sas yu may sas par rapport sama taxawaay ci mbuur donc man moo tax ma ma fonk ko. Mhm. Euh, te jaral na ma nag euh, lu nekk entre entre guillemets. jaral na ma lu nekk mooy du ma du ma du ma du ma noppal du ma du ma yendul du ma fanaal. Mhm. lu ma mënti def ba Macky Sall nekk ci jàmm. di ko def. dama koy def. Mhm. Euh, mais et puis ça aussi. Mhm. par par par di gérer tamit. li mu la dénk. les jeunes la mais activistes yooyu tamit di leen gérer. Mhm. important parce que cër bu nga leen di jox dina tax dina tax tam ñu nangu laa nangu laa accompagner. di xool lu ngay def. ba xam tamit ne eh kon de lu gars yi di wax amul. amul parfois parfois dañu dugal ci ay wax rek. parce que activité dañuy ñëw rek lan la lan la Guy Marius Sagna xam ci. Euh, ci ñenn ñi département de Mbour. c'est dafa dégg ay wax. dañ ko alerté ci dañ ko ñëw alerté wax ko wax yooyu mu defoon ne loolu gëm na ko. Mm-hmm. moo tax mu ñëwoon seet si foofu mais su ñëwee su ne la nag su nekkee ne tàmm na di di di ñu jegeñ ci euh, euh, autorités yi. Mm-hmm. di xam lu ñuy def mais dañuy xam dëgg bi. li xam ne loolu yëpp ay ay affaire politicien la ñoo jéem rek. am ñoo xam ne parfois mu am yoo xam ne da nekk da ngay nekk ci biti doo xam li nekk ci biir kumpa boobu. c'est vrai moo lay moo lay. loolu rek la mais sinon sinon sinon vraiment. Hmm. man y a pas de man je considère pas les activistes comme des. comme des comme des ennemis quoi comme des <laughs> tous là pour le Sénégal ñenn ñi. ils euh, dañoo am benn attitude d' alerte ñeneen ñi nekk euh, dans l' mhm. dans l' exécution mhm. ñu nangu tamit ñu ñuy du ñu dugal ci ay. ay ay parce que le travail qui nous attend est énorme. wallaay wallaay ndax te mbuur nu mu toll ak ambition yu mbuur am. mais fi ñuy daaneele élection locale yaa ngi ñëw mun naa am janvier sa candidature mairie mbuur ñu xaar ko wala. xam nga man euh, man nag sama problème mooy toujours rek soo nekkee njiit. Mhm. Euh, je gère, je une coalition. Man, je suis le coordinateur le de la coalition de la grande majorité présidentielle dans le département de Mbour. du dëgg nekk ak ay parti ñu nekk si ñuy nawle. waruma mun a ñëw naan damay nekk. candidat te toog ma waxtaanee ak ñoom ñoom. effectivement du dëgg. Mhm. je peux être par par contre candidat à la candidature. Mhm. yaa ngi dégg la. waaw suñu biir. seen biir daal suñu biir mun naa toog ne ah man de am na envie. nekk maire mu nekk maire mu wala nekk wala nekk président conseil départemental. Mhm. xam nga eggaguma foofu. Mhm. et dafa laaj tamit ma toog waxtaan ci sama kilifa. parce que tamit amee chance xam ne euh, yow da ngay waxaat directement ak le son excellence le président Macky Sall da nga koy jox cër boobu man bëgguma jiitu président Macky ci dara. ci dara dama bëgg rek lu may nekk rek day fekk na moom loolu moo ko gënal. moo ko gënal donc moo tax man du ma du ma du ma du ma di wax naan je suis. je suis candidat je suis seulement le candidat pour xam ne président Macky xalaat na ne man am naa fa jëriñ mhm. man xalaat tamit ne man tamit mun naa fa andi dara. Mhm. je suis je suis candidat à ah, ah, ça <laughs> DG suñu waxtu jeex na ñu bàyyi la nga tàggootoo rek. waaw di di remercier toujours waa référence actu euh, samay partenaires lañ. Mhm. chaque fois que j'ai des moments importants ñoo may ñoo may accompagner. Euh, qui me donne toujours l'occasion de pouvoir. waa Sénégal gën a xam sama sama état d'esprit. comme tam sama sama jaar-jaar ak sama jëm ak sama jëm jëm fu ma fu bëgg jëm donc et ça c'est important donc di euh, di di remercier rek encore euh, Référence Actu si seen professionnalisme seen générosité envers ma personne et aussi sur votre sens des responsabilités par rapport euh, à la diffusion des des des des réelles informations et ça c'est important. du dëgg di tamit di euh, ñaanal waa Sénégal ñëpp jàmm. Mhm. di remercier aussi tous les j'ai pas l'habitude de le faire mais toutes les personnes qui m'accompagnent. Mhm. mooy sama équipe bi ma jegeñ sama san parler de non parce dañoo bëri. bu mhm. ma tudd kenn keneen ki defe ne man. waaw waaw ci keneen. mais daal sama équipe bi sama jeunes yi nekk autour de moi mag ñi nekk autour de moi waa APR commune du Mbour yëpp waa benn bokk yaa commune de Mbour ak département bi yëpp. ak tous les responsables yi nga xam ne damay dañoo bokk tamit di euh, nekk sur la scène politique. Mm-hmm. Euh, di jaar di di baalu àq aussi tamit képp koo xam ne dans mon euh, dans mon envie de bien fair ak yéene bi ma am ci ci Mbour ak son excellence le président Macky Sall ma def la loo xam ne tooñ la wala wax joo wax joo xam ne dafa dafa tegul ci yoon maa ngi koy jéggalu di ko baal xam rek ne man yàlla daf ma defal ba nga xam ne man. yërëmu kenn lu bon. mais nag nit la rek nit parfois si sa si sa xër. waaw nga blessé quelqu'un sans sans le savoir. Mm-hmm. kooku tam soo dee gis na loolu maa koy euh, baalu àq di ko jégalu. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko moom. ak njabootam amiin yaa rabbi aar leen ak njabootam. Mm-hmm. Euh, xam ne yàlla yàlla pare na bu yàgg. incha allah ñu gëm ne lu ñu war a doon de. dañ ko doon te kenn du ci mun dara. incha allah nañ am nag cette générosité boobu. Mhm. yéenante jàmm. Mhm. et puis que diggante bi ñuy def tam ñu def ko dans le dans le fair play et dans gëm yàlla xam ne euh, euh, ñëpp mënuñu nekk maire. Mhm. ñëpp mënuñu nekk ministre ñëpp mënuñu nekk EDG mais lu yàlla tudd rek di ko di ko di ko am. di ko am donc nañu rafetal diggante yi. di rafetal mbir yi et puis gën a gën jàmm. et puis euh, di ñaanal président Macky Sall ne xam nga loolu moom moom lay moom lay moom lay mujjee. ki moom la yéen bi yëpp si kawam la. Mhm. yàlla na ko yàlla suturaal ba nga xam ne fu mu bëgg a yóbbu Sénégal. mu fekke ko. mu mën ko mu tal ko te mu digg ñun Sénégalais yi moom. moom amiin yaa rabbal aalamiin merci beaucoup. Mhm. Euh, mu nekkoon euh, DG Sirn nekk président conseil départemental bu mbuur di Serigne Saliou Sam euh, Serigne bi ñu ngi kontaan baax ñëw. fekk si la parce que c'est un réel plaisir sincèrement parlant de di toog ak yow di échanger ak yow et sa ñaan bi nga mujjee ndax maam Abdou da doon wax ni boo nekkee ci gaal bul ñaan bul ñaan sa ëmb mucc da ñaan gaal gu mucc te président mooy dawal gaal gi kon bu muccee ñun ñëpp ñu muccaale et donc mu nekkoon suñu gan Saliou Samb bu département Mbour ñu leen di dig daje beneen daje si dénkaane koor ak beneen gan